mais <laughs> mais <laughs> nuyu non non Esar mag nga. <laughs> Esar mag nga. Jéeri kay yow laa koy laaj Jéeri nee na après Bercy la la jëmee. Jéeri nee na. nee na après dani dani ma def na ni grand théâtre. Ah. nañ waajal nañ commencé waajal Bercy. mais foofu loo koy waaw Bercy loo koy topp ah, ko. ka mag moom. ah mais Bercy garaaw na de Kéba. fii yëpp a garaaw. bu fekkee loolu la. fii yëpp a garaaw de. lan la garaaw lan la yéen bés nga moom la ah mais Bercy dafa garaaw de. Bercy donc Ousmane. Ah. Euh, euh, Doom de Paris. waaw Doom de surtout bu Doom de Paris bi sax. loolu daal ko moom. est-ce que deux mille vingt euh, deux mille vingt trois wala deux mille vingt quatre dinañ la séntu Dôme de Paris. yàlla baax na su ma séntu moom. nañ séntu fépp rek yàlla baax na. Ah. waaw ah tey nga nga nga nga bi nga bi nga paree bi nga paree Grand Théâtre def ko Dôme lan moo taxoon nga raar. kan moo raar. yow kenn gisatul woon. dañoo raar wala. non yow yaa raar kenn gisatul woon. dañu raar wala <laughs> dëkk wala dëkk bee neexul woon. Ah. ok ko tey de. yow yow lii. mais après programme bi loo déggee retour yi est-ce que Kéba génn na si est-ce que Kéba génn si est-ce que Ndiéru Ngoné si. alhamdulilah. yow mm-hmm. yaa ah, nga foon. ah yow yaa ngi foon ah, ah, ak islam nu di wax rek. <laughs> site euh, euh, site Aquaterra mais xam nga ne gars yi lan lañ doon laaj ne ma retour yi affaire yi demal jëli Kéba pourquoi drapeau Pikine bi ñëw. drapeau Pikine parce que je suis Pikinois. Uh-huh. nu suis Pikinois yi. Ah, gars yi man baa nii laa di. Uh-huh. Pikinois la. xaw siisu nañ ne ne est ce que du Mame Ndiaye sa moom moo tax nga yéegal ko. waaye wér nga. yéen retour na foofu. non loolu kenn kenn waxul loolu yaa ko wax. mais lan moo je suis de Pikine. ah Baale bi laa laa dëkk ji. arrêté ah. mbay ngay ngay mbay. <laughs> Naseeram Daw. Ah. mais euh, maa jaxase bi. mais keroog gars ne. drapeau bi Amadou Diarra mais monsieur le maire Amadou Diarra. Ah, moo ma ko jox. comme il est de Pikine il est de Pikine rek nag moo ñor. man may man may Pikine comme mu mu mu jox ma drapeau bi ba ma. mais mais Pikine jox drapeau. mais keroog bi nga ñëwee rek jéeg gis affaire bi amul noonu surprise amul. surprise. waaw. Hmm, pour dire vrai non waaw waaw mais loolu. loolu kat mom euh, merci ci lolu sax parce que loolu mom dañ ko sant rek. Mhm. dañ ko sant bu baax bu baax a baax a baax a baax a baax ña fa ñëw ñëpp. Mhm. parce que c'était pas évident. xam mhm. nga ña fa ñëw ñëpp dañ ko sant parce que xon na trop et que. Euh, nana mom lol mom gay gars uh-huh. mo bo boo wootee. Uh-huh. nit mo woote. ay nit uh-huh. ay nit war koo fekk. wa lol ak sant la. lol nag eh, di ko sant ñëpp nak parce que kulim mën nga faté mën ngaa jiw. ñëpp ñu fa ñew ak ñëpp ñu amon yene ak ñëw. ñoo waral wax dëgg ñu gis mo mu mu jàll noonu macha allah. surtout une première. na war war def salle bi. 15 jours avant comme 13 jours avant. mu won ma ne salle bi li nga laaj. mun mënul continuer ñi bëgg a ñëw. te amaguñu bii. ba tax nga génne ko loolu loolu loolu mbay neexut. waaw ak sant la de. waaw loolu kay. ñu ñëw nga nga jiital sa ñetti peer peer sa ñetti ñetti ñetti peer ma nga papay papay Bambali papay Mandiaye Seck. ñu jiite yow nga nga nga ah waaw waaw mais ah Fara Marine la te Fara Marine moom euh, ñun ñoo ñoo gën nekk xale. Ah. ñun ñu rakk yeeg doom yi. Ah. am nañu mag. Ah. événement bi nga il faut nga impliqué ci say. Euh, nee nañ jamono yi yaay. nañ jamono ji yaay un yaay deux. la mooy un gi deux. yaay deux quoi yaay deux si si si kii Sénégal. deux mooy lan. maanaam yaay euh, yaay deux quoi a. kan mooy un. nee ah waaye mooy un. <laughs> ah Wally. waaw waaw waaw waaw. ah nangu ko. non mais bu weesoo grand yi. ah nijaay ah. waaw ñu nangu nag ne Wally moom wax yàlla ne ko jox moom na gars yi nangu rek loolu garaaw loolu garaaw doom kay bu dee baax na ba bay dee baax na bay bu nekkee cinq six six dix sax baax mais euh, ci famille bi am na ko xam ne nee nañ mooy un bu weesoo grand yi nag waaw suñu grand yi ñooy un ak lan. <laughs> ah maa ngi rey la Kéba sama euh, xarit nga ko amoon na xool mais Kéba. ba ba nga ne. boppam bi wërëgul. waaw mbay sa bopp bi wërëgul. patriote yi toj nañ sa bopp bi nga engagé waat artiste Kéba Seck xam nga lii sa problème. waaw patriote bi ni ñu la may yow teg sa bopp bi. waaw ca Fakal kaba dëgg moom patriote yi. patriote yi engagé wu ba leen si filé ñu dugg ba ba mu wax waaye te moom xam na ah, gis naa benn instant euh, mu mu ko la bi. ba pare ah kon loolu loolu. patriote yi ko toj na nga ko téléphone. ba eh, ba pare état bi maa subventionné nañu état bi. non non dama ni garaaw bëgg ma. non dinaa la boole euh, dinaa la boole kenn mu subventionné parce que day jàppale le président Macky Sall mii la daaj Mamadou Ngom dinaa la boole moom mais Kéba mu benn question rek moo si des. benn question Wally dafa dem. doom de Paris dama dama faafa de. non dafa doom Wally dafa dem doom de Paris. Ah. ah mu bëri woon coow gisuñu kenn sëriñu seen waxul leen ko quoi waxul leen. waxul leen bàyyi leen boobu day joob waxul leen kii ngeen noppi rek. ah am nañ lu ñu waxal. ñoo ñoo leen waxal. Hmm? population euh, François Laye Fara Marine. Hmm. ñoom xam nañ lañ wax. lan moo tax def demoo defal ko surprise. eh Lam ah. demoo ko defal surprise jàppale ko. mbay wax nga bëgg xanaa. double prix non non. ay wax laa bëgg moo tax ma ñëw. Eh, six heures laa toog ba wax nga bëgg. <coughs> Mbaye arrêté. ah gars de nee nañ parce que ñëwul woon fee non non waa ma xam nga nag Sénégal. il faut gars yi nag ñu ñu ñu ñu ñu ngi koy waxee quoi. ñuy comprendre. ah non waxuma compréhension sax mais xam nga tey euh, liggéey. Ah. dañ ne boo dencee sa sa néew sax. li mhm. farata ak moom mooy nga dem denc dem liggéey. Mhm. jox ko suñu borom sax dem liggéey amul yeneen ñi ci ci xew yëpp ci dëj. Mhm. dëj la rek. waaye boo dencee sax jox yàlla bu moom mooy jox jox ko néew. dama la nga liggéey ku ne am nga droit liggéey. tu vois. que métti na. fi ñu jógee yàlla buñ ci yàlla yàlla yàlla dogal ñu ñu ñu bañ bañ fee amaat parce que ñun xam ne loolu. mais seytaane moom fu ne lay dugg. mbaa nga fekk li faroon am la di masaw nag parce que dafa métti nag di masaw bu baax ñi euh, ci yàlla dogal ñu ñàkk seen bakkan parce que benn rek dafa métti malaak ay ci coow loo xam ne wax dëgg yàlla moo na ñàkk lu mënoon a ñàkk la waaye bon mais teewul bi bi mu loolu amee man nekk ma fii bu wax lu neex lu neex wàlle dana wax dëgg Mm-hmm. ak ku mën doon aussi mm-hmm. loolu amee moom en tant que sénégalais mm-hmm. en tant que julit boole am na lu ko métti ba tax mu puus ba mu puusee nag wax dëgg yàlla tey nag ci contrat jàmbur mën na ah, bañ a puus mais dafa puus ah. naxante naag promoteur bi wala producteur bi ba puus ba mu puusee nag wax dëgg yàlla nag ba mu réussir waat loolu garaaw moom ah. def def na li mu war Sénégal nag moo mooy mooy dëkk boo xam ne nii da naan lii ñii na lee ñii na lële ñii na loo. daa xaw ah, eh, gis nañ ko mu may ay xar yu bëri tey di masawu encore une fois wax diggal événement bi di ci xew lépp émeute bi. Mhm. yàlla bu mu fi amati parce que nag euh, réew mi baaxoowuñu loolu daal. Mhm. ça fait mal. Mhm. te am na si ñoo xam ne tey ci tabaski bi nii. Euh, yàqal nañ leen loo xam ne moo nañ déglu ñu bëri ci par exemple. mais yàqal na leen loo xam ne duñ ko mën. Mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. donc yàq bi tamit dafa xaw a doy waar. Mm-hmm. man manifester daal bëgg naa ñu gars yi manifester. takk takk comme man moo sooy xonk. génn réclamer leen wax wax wax seen doléance. yàq bi ñoo xam ne seen ñoo nekk lool rek loolu tamit dafa métti. Uh-huh. encore une fois ñu ngi masawu bu baax parce que ça fait mal. Uh-huh. ko wax ko waxul nag. Uh-huh. dafa métti ah. métti ay problème ay problème toll nii vraiment c'est grave. wa wax génn li ma wax. <laughs> oui euh, euh, gis nañu Wally tey. bul tiitale nag loo xam ne lu la neex ba naan <laughs> eh, Kéba la mu wax. non non non <laughs> da ngaa commencé am xaalis quoi gisoo li nga sañte mais xanaa nag ren di nga may ay xar nem sa a yi xanaa di nga leen jox xar. yàlla baax na. waaw yàlla baax waa léegi may xar doo may xar. waaw yàlla baax di nga may xar. am na yéen mais mais di nga may ay xar rek. am na yéen kaw xa kaw la ma bëgg. ah, ah doo doo xar. sa employé yi fi mu nii. yëpp ay employé la yëpp ay employé la. non nga ne waale mi ngi may xar. waaw waale mi ngi may ay xar de tey. Ah, yëkkati na yàgg naa may xar. nee nañ 12 millions la joxe xaw ma tey. ah mais waale yàgg naa may xar. ah, ah. maa ngi ñëw. <laughs>